li xew ñëpp ko gisandoo umpul kenn ndax lu ne fànn la ndax foofu la nguuru Macky Sall toll mooy seeni njombe ak seeni ñaawteef bu njëkk ba daan nañu nëbatu di ko def waaye léegi nëbatootuñu loolu nag day firndeel nguur gu jaaxle nguur gu nërmelu nguur gu xamatul fu jëm daa si dellu si bu si kanamee li xew keroog yéen ñëpp gis ngeen ko mooy jaay doole ki nga xam ne moom la Macky Sall ak nguuram nekkee te mënuñu koo def lu ñu ngi sukkandiku ci jumtukaay yi nga xam ne yéen askan wi yéen a leen ko jox ngiree ñu wàññi jafe-jafe sénégalais yi ngiree ñu assurer kaaraange sénégalais yi ngiree ñu fexe ba nit ñi am xëy am xel mu dal waaye ñu dajale doole googu yépp daat koy orienté ci nu ñuy def rek ba faagaagal képp kuy opposant ak képp koo xam ne ne nga bokk ma gis-gis ak ñoom mu mel ni li ci ëpp nag ñu ngi ko juble ci sama jëmm ji te loolu li ko waral yéen ñëpp xam ngeen ko Sénégal yëpp xam nañ ni bu woon police ak gendarmerie parti kese Macky xam ne ni ñoo ko doole foofu ci réew mi li xew keroog ñëpp ko gisandoo mooy ne forcé Ousmane Sonko dina dem tribunal ci jamono joo xam ne amul benn loi ci dëkk bi du constitution du loi boo xam ne nee na ci genre dossier bi farata la ci man ma teew tribunal buma sobon sax ma ne ma tribunal du té procès ba am juge bi àtte num ko num ko nexé li wax jugement par défaut kon amul lenn lu mëna justifier ci dossier bo xamné ne correctionnel la nga ne forcé rek dina wañ loxo nit yobbu ko tribunal ba tax nga toj autom ba tax nga gañ ko waye li gëna graw nga jël produit bo xamné ñepp xamnañ ni produit toxique la moy produit bo xamné lu mëna gañ nit la lu mun a def jombe yu bëri la ci wér-gu-yaramu nit jàkkaarlook moom pomp ko ko ci kanam ci bët nokkiloo ko ko te problème boobu mun a am lu bëri lu mu yàq ci wér-gu-yaramu nit kooku jamono ji ñu tollu tembe xamaguñu produit boobu lu mu doon yónnee nañu li nga xam ne moo nekkoon ci suñuy kaw yére bitim réew pour ñu def analyse yi ndax fii lañ ko bëggoon defee waaye nee nañ ñu laboratoire yi nekk fii amuñu jumtukaay yi pour defee ko fii ci senegal ñoo ngi xaar résultat yi am na loo xam ne lu nit yi liggéey ci santé am na lu ñu njort ni lool la ci benn produit boo xam ne euh, agent anti-émeute la yu ñuy utiliser ci yu mel noonu bu dee boobu la am na lu bëri lu mun a def ci santé ci lu war jëm ci mbirum bët ci dem di ci mbirum noqi ak poumon ci dem ci lu li dem ci wàllu xol ak ci li dem ci wàllu biir moo tax keroog biñ ma ko defee ca saasa de métti woon na lool ci bët yi ak ci noqi bi waaye bi ñu eggee kër gi ci ngoon leneen ak leneen yokku na ci amoon nañu ay douleur ci biir bi amoon nañu yeneen ak yeneen douleur ba tax ñu ne faw rek ñu dem hôpital ñu xol ñu waye sénégal yëpp gis nañ ni bi ambulance jógee fi di dem dañoo lank ni ambulance bu du yegg ci sama kër il a fallu que sama avocat sen bop ñew dugg ci bir avocat euh, ambulance bi and ak ambulance pour ambulance mun nekk ci sama kër motax mané tentative d'assassinat la moy pexé la pour fat suñu bakkan te du pexé bu jitu te gëmm ni dina doon pexe bu mujj ñi ngi sant yàlla nag ndax bi ñu dugg see fii ci clinique bu léegi wax dëgg yàlla macha allah dañ fay fekk personnel médical bu mat lañ ko doyee samay médecin bopp déplacé wu nañu jóge seeni cabinet spécialité bu nekk ñi nga xam ne ñoo ma ciy suivre ñëw nañu fii def seen liggéey niñ ko war a defee Anda ak ñi ñu fekk fi ci clinique bi ñu ngi leen di gërëm di leen sant ñakare bobu nak am motax sénégalais yu bari tuddoon mbirum évacuation sanitaire moy nañ ma génné réew mi pour ma dem xooli sama yaram dim réew ñi ko wax ñëpp nak doore ko ñi nga xamné ma ak ñom ñoo bokk faré ci parti bi wa bureau politique bi ak militant yi ñi nga xamné ne suñuy allié lañu ci walu politique ñi nga xam ne ci société civile bi lañu bokk ñi nga xam ne ci mouvement citoyen lañu bokk ak ñeneen ak ñeneen ñi ko wax ñëpp ñoo ngi leen gërëm leen sant ndax xam naa ni njàqare moo tax ñu wax ko waaye ñeewantu moo tax ñu wax ko humanisme moo tax ñu wax ko ñu leen gërëm waaye ñu ngi sant yàlla ndax nee naa ñun dañoo mës a wóolu ci bépp fànn ñi nga xam ne ñoom la ci seen xam-xam màcc te ñu nekk ci biir réew mi moo tax fii lañu ñu mës a fajoo ci lépp lu jëm ci wàllu wér-gu-yaram ñooñu liggéey bi ñuy def ñu ngi koy def ñi ngay xaar ba dajale lépp ci résultat yi bu dee ñoom jàpp nañ ni laaj na loolu dinañ ko xool waaye tembe fi ñu toll nii loolu du farata ci ñun du farata ci ñun fii lekk rek ñu ngi mën a faju fii ci biir réew mi li ñu mënul def fii mooy analyse yi nga xam ne amuñu jumtukaay yi yónnee nañ ko bitim réew ba xam produit yooyu lan la buñ ko xamee it liñ ci war a def ci wàllu weer gu yaram ak ci wàllu yoon dinañ ko def ba mat sëkk moo tax xalaatuñu ni jamono ji jàmp na wala farata pour ñu génn dégg nañ sax ñi féete ci nguur gi naan ay waxu évacuation sanitaire ba naan ay expertise ak contre expertise amaana ñoom évacuation sanitaire lu leen di arrangé la man de ci sama jëmm bopp sàkkuguma ko doxuma ko bokk na ci li tax mooy li ma njëkk a wax mooy fii ñii nekk fii Sénégal yor paj mi ci wàllu biir ci wàllu bët ci wàllu euh, xol ci wàllu poumon ak yeneen wàll ñu ngay def li ñuy def te jàpp nañ ne war nañ ko mën def dañuy sant yàlla dénk leen suñu bopp ñaareel biit mooy ci wàllu politique ñun dañoo jàpp ni combat bi fii la biir senegal te bu ñu fàtte mukk ni saa su jëmm jaaxalee nguur ba xamul nu muy def ak moom day fexe ba génne ko ci réew ma moo tax noonu la ñu génne woon yonent yi ci seeni dëkk noonu la ñu génne woon mag ñu baax ñi doon résister yépp ci seeni dëkk fu nguur mu sa jaaxle ba xamul lu muy def ak nit rek day fexe ba mu génn dëkk bi te ñaare boo xasee ba génn dëkk bi mën nañu jafeel dellusi bi ci biir réew mi moo tax ñun duñu génn réew mi komba bi fii la ñu bokk kook ñuy xeex ñépp ma jiital ci ndaw ñi ak seen taxawaay bi nga xam ne mënuma koo natt ci njàmbarte boole ci mag ñi nga xamne mënu ñoo genn xex waye ñi nga tok fi ñi tok di encourager ak di ñaan boole ci mbooleem seen citoyen yi nga xamne sa su ma joggé sax di déplacer wu naan ma ngi dem tribunal wala ma ngi dem meeting fo romb yoon bo romb ñepp ngi taxaw ci balcon yi di la taccu ak di la encourager xex bi fi la té li ci des bëreetul duma len bayil rew mi naan magi ngi genn bitim réew loolu rek la yàkkamti te bés buñ ko defee dinañu yeggali seen liggéey mooy xool nu ñuy doggalee li fi nekk ci résistance xool nu ñuy def ba cibler ñu war a cibler moo tax fii lañuy toog ak ñoom di jëflanteeg ñoom di jàmmarloog ñoom di xeex ak ñoom ba keroog ñu jëlee fi Macky Sall ak système bi nga xam ne baaxul ci Sénégal ñi ngi nag ci situation boo xam ne weer wu nekk semaine bu nekk bés bu nekk dafa am solom xeex boo gis bu mu bu mus defar société définitivement cappaandaw gi mooy gën a métti lépp te foofu la ñu toll waaye suñu gëmee suñu bopp dëggal suñu bopp gën a takku li nga xam ne mooy mottali xeex bi soreetul li ma ci jangat bari na ci dina ci delu ci li nga xamne nak def nañ ko neena Macky Sall na wajal budé mën na jël bakkan Ousmane Sonko nako jël budé mën na jël bakkanu ay millions de sénégalais nako jël ndax leen liñ ko bañalon bi pa bañalon ko ko baye wessu mom lañ koy bañalat rek benen yoon moy du mo forcer ci lo xamne du farata ci man sax ma dem wuyu ci du mo mus forcer ban yoon la wara jaar ak naka la fa wara jaaré moo tax ñun ñëpp nañu takku waajal étape yi nga xam ne ci lañu jëm la ca des nag mooy dox taxaw def seetlu yu ndaw ak gëna a ñi nga xam ne ñoo taxaw ngir xeex dama gëm ni majorité sénégalais yi la kenn ku nekk ak ni ngay xeexee li ma ci njëkk a jàngat mooy li xew diggante di 16 ak tey jàngat biñ ci war a njëkk a jàngat mooy askan bu taxaw taxaw jonn fas yéene jàkkaarloo ak nguur goo xam ne nguur gu mànduwul la nguur gu dëng la nguur guy jaay doole la nguur gu bugg a faagagal askanam la nguur gu bugg imposé imposer dictature la askan gu mujj mu musa taxaw te dëggal boppam amul askan bu xaj ci nguuram amul ndax nag waxoon na ni li fi amoon du fi amat man jàpp naa ni lu raw li fi amoon am na te nag du lu ñuy bàkk wala lu ñuy rafetlu ndax li yàqu ci réew mi bëri na li ñu taal ci réew mi bëri na lii lépp mënoon na ñàkk waaye liñ ciy jàngat rek mooy askan gu taxaw ne du nangu mu ndiam gi nga xam ul bitim rew bi pa way bir rew mi lañ ñuko bëgga yewé askan bu taxaw rek xajul ci nguur ñu leen ci jaajeufal ci seen taxaway way yit di jaale ñi nga xam ñak nañ ci ap mbokk di delu masawaatit masawaatit ñi nga xamne amna langue yu rëy luñ ci top yu leen yu leen jural Lol, nak ci nguurum Macky Sall la ray nit yomb na len lolou tay rek gis ngeen fele ci Bignona won nañ len ay image yo xamné ne nit mënu ko jàkkaarloog mom xol ko te do am lu Mui ko ci mom muy alkati yu jël balu fital Dor ko ci bop ab xalé bo xamné ne doon manifester yorul lu ay xeer lolou moy nguuru Macky Sall te lolou day ñew yokku ci yenen ak yenen yi nga xamné ne na len diggante mars 2021 ak léegi te àdduna bi yëpp gis ko ba département d'état américain def ci rapport euh, ay organu Nations Unies def ci rapport ñu koy wax nag ni su mujjewul yi dina mujje fii ci ay juridiction Sénégal mu war a layoo nag ci bakkan yi mu faat lu ak loraange yi nga xam ne teg na ko ci Sénégalais yi di yokk ci mbirum milice yi ñepp gis ko ay nit yu mu jël ñu leen di ak police bi ñi ñu jox leen ay yat ñi ñu jox leen ay jaasi ñen ñi nak ñu jox leen ay fetal ak ay grenade lacrymogène lolu jaaxalul sénégalais yi jaaxalul ndaw ñi ndax fiñu toll kenn ku ne xamna liko mbir mi jaral may gëna a ndaw ñi di leen encourager ne leen nag milice yoyu na ngeen ak ñom te ku ngeen ci jàpp it xam ngeen li ngeen def ak mom parce que kenn du fi joxe ñu sacrifier ko ci caaxaan di masawu ñi nga xam ne gaañu nañ si waaye di masawu it ñi nga xam ne tey teg nañ leen loxo du lu ñuy rafetlu waaye yeew yeeweeku boo gis ci aw askan dafa am fu mu jaar dafa am ay sacrifice yu mu laaj man mi de Ousmane sonk nee naa leen sacrifice buy am man maa si jiitu parce que jaral na ma lu ne jaral na ma sama bakkan wi waaye suñu réew pour ñu ratee rendez-vous bi dina jafé trop ñu dab wat lolu motax kuy xex rek yaw ndaw mi ya ci wara a ñep ndax sa avenir la à court terme à moyen terme et à long terme ndax aduna bi xaaratuñu te to dem Europe to dem amerique te sa rew am nga fi lo xamné buñ ko tegoon ci yoon nga am natangé ba faw kon bul nangu ñila nan ya fay perte li ñal naan jaru ko ñi la naan ragalal bul ko nangu mukk sa avenir mo nek en jeu te mën nga am li nga bëgg yépp ci biir réew mi yow kat bi mën nga ko am yow transporteur mën nga ko am yow baykat bi mën nga ko am yow keneen ak keneen suma limé rek mën naa lim secteur yépp kon amul lu war a tax ñu deltu gannaaw ñaareel bi mooy ñun ñu xam biñu do rek legi lañu sacrifier sacrifié na ñaata nit la ci jëf seen bakkan rot ñaata nit lañ ci gañ ñaata nit lañ ci tej kaso est-ce que ñun am nañu droit delu gannaaw est-ce que am nañu droit di def ay calcul fi mu toll ni neena len xex fi mu gëna metté fa la victoire bi gëna a lolu diina sax jangal nañu ko yalla léeg dañuy nattu ba seet ndax dinañu bayyi ndax dinañu delu gannaaw fekk victoire bi jege na waaye lañuy jàngat ci li xew mooy Macky amul capacité bu mu jàmmarloo ak askan wi neewoon na li fi xewoon du fi xewat dem ut ay ngàndaay nee na dem jënd ay grenade jënd ay ay ay ñëw teg nee na recruté na ay alkaati waaye gis nga keroog li xew rek ci senegal yëpp wane na ni mbir mi dépassé na leen amna na yu beuri bo xamne ne dem nañu ba grenade buñu sanni sax amatuñu ko lool limu woné moy bu askan bi yépp yokkee taxawayam su doon téméré génn fukki témér génn man gëmna ni ci ñetti fan ñenti fan cioli dina jeex tak Macky Sall dina deltu gannaaw ta xamni momul Sénégal donn ko ci ay way juroom dañ ko denkon mandat ta mandat ba jeexna faaw rek dina dem ta kenn du nangu muy faagaagal ay nit yu ko deful dara dul am ambition wax ak sénégalais yi ba dugg ci xolu sénégalais yi li xew wane na ni stratégie de la peur li tubaab naan stratégie de la peur mooy fexe ba xoqatal nit ñi ba kenn dootul ñeme ñaari at yëpp loolu la ñu dund bu ñu nee dara am na rek Macky Sall génne lépp lu mu am ci gendarmerie ak police teg ko ci rond point yëpp pour Sénégal yi teg seen bët bu ko defee ñëpp tiit ne ah fii de ko fi yéen kutu njaaxum am xoolal li mu yor ci ay dragon xool li mu yor ci ay char de combat xool li mu yor ci ay alkaati waaye li xew diggante semaine passée ak tey wane na ne ndekete Macky Sall yorul dara ndax askan du du hasard bu constitution ne kattan ak doole ak sañ-sañ askan wi rek a yor la souveraineté appartient au peuple léegi nag ñu ngi ci deuxième phase stratégie de la peur mooy li ñuy def pour nit ñi ragal xam nañ ni amuñu moyen pour contenir ay manifestation de masse yoo xam ne it day day day day lalu ci ci temps bi moo tax ñu ne léegi nañu def li ñuy wax des arrestations préventives mooy nañu fexe ba jàpp ñu bëri ci gars yi rawatina nag ñu ñu yaakaar ni am nañu yenn responsabilités yi mooy arrestation ciblée yi ñu nekkee loolu mooy deuxième phase stratégie de la peur bu ko defee kenn ku nekk ni ah wóorul est-ce que duñ ma jàpp eh, est-ce que est-ce que est mbokk yi ragal ci yeb yàlla la bokk nit ku nekk li yàlla bind séew su app bi jotee dina am bakkan gi yàlla kuñu bu nee bés sàngam la bés boobu lay doon mën na la fekk sa kaw lal nga tëdd nelaw comme mën na la nekk fekk ci circulation bi ngay dox bu dee lii ñuy xeex gëm nañ ko te gëm ni jaamu yàlla la ndax amul lu weesu lu gën a kawe ci jaamu yàlla xeex ngir saw askan baax loolu amul lu war a fees suñu bët bon ñaan ñi ngi tiit wala ñi ngi ragal te fàttaliku toujours ñi nga xam ne ñu ngi woon suñu wet di xeex te tey nekkatuñu fi te Macky Sall moo dal seen kaw kon ñun amuñu droit deltu gannaaw lii muy def yépp nag yàgg naa leen wax ni ñett a ko dese police gendarmerie ak justice ñett yooyu ñoo ko dese ñi ñu jàpp ni yépp gaawantu dem présenter leen justice sànq nee nañ ma fii di tribunal Dakar lu mat ni 200 yoo xam ne présenté nañ leen procureur dafa ne ñoom ñëpp nañ leen def mandat de dépôt ci loo xam ne participation à une manifestation interdite la nee naa leen problème mu Sénégal bi gën a rëy tey mooy justice te weesuwul procureur ak ñaari juge d'instruction bokk na ci li gën a rëy ndax xam nañ ne lu bëri bu ñu yóbboo dossier bi flagrant délit juge yu ñu fay fekk ñu ci bëri ci ñoom ay juge yu jub lañ ay juge yu dëggu lañ ñoo xam ne am na loo xam ne duñ ko nangu gis nañ ni ñi mujjee jàpp ñëpp biñ leen yóbboo ñi ci gën a bërile sursis la am ñi ci des ñu bàyyi la ñu ñibbi seen dëkk seen kër moo tax ñu ne nag nañu fexe ba luñ leen teel a présenté à des dañu fexe ba yóbbu leen instruction yóbbu leen rëbës ñu toog foofu. problème bi gën a rëy ci Sénégal tey mi ngi ci justice te weesuwul quelques magistrats yoo xam ni saa su réew mi takkee ñoo ko taal waaye nag fitna du yem ci ay boppu borom nit ku taal fitna na nga xam ni fitna gi dina dal sa kaw yowit ñu ngi wu ñep wax ni stratégie terreur bobu nak andi nañ ko bo hôpital bi ma nek tay ndax ci suba ba légui convoquer nañ wa hôpital bi police di len laaj question yo xamni kenn xamul naka lañ ko mënee laajte nitu hôpital pourquoi Ousmane Sonko nek sen hôpital lan la fay def ak wax yo xamni kenn xamul lu mu doon mu melni légui crime la Ousmane Sonko tawat am hôpital bu mu dem ñu fajj ko comme tous les Sénégalais man gannaaw bi ma waxee li xew yépp ci bés ba wax leen gën leen soññ ci taxawaay bi xeex bi na gën a dëgër na gën a taxaw te man mii di wax ak yéen bu soobee yàlla ëllëg dinaa jóge ci hôpital bii dem sama kër yeggali fa sama noppalu waaye xam leen ni kenn duma jiitu ci xeex bi lu mu lu mu laaj rek bu soobee yàlla dinañ ko def ndax xeexaluñ ko suñu bopp dañ koy xeexal suñu réew dañ koy xel suñu sët ak suñuy setaat bu leen kenn xoqatal bu leen kenn tiital bu leen topp ñi nga xam ne seen intérêt kese kese moo leen tax a jóg ndax li leen di jox ñu wër di wax réew mi suñu réew la ñun ñëpp ñun rek ko mën a kon di leen gën a lancer appel boobu di ko lancer coalition bi ma bokk di ko lancer l'ensemble des forces vives de la nation di wax nag ni dafa jot ñëpp ñi nga xam ne ñi ngi ci ay xeex nañu fexe ba xeex yooyu ñu dajale ko muy la jonction des forces vives di masawit suñu mbokk suñu xarit suñu frère daam Mbodj mi nga xam ne Sénégal yëpp gis na ni essayé nañoo faat bakkanam ci loo xam ne kenn xalaatuloon ni am na Sénégal du gulet nag ndax def nañ ko ci ay soldaa yu réer kii ñu gis retrouvé euh, euh, corps bi kenn ba léegi kenn gisu ko te gis nañ fi ay nit yu dugg ci police ak seen wér-gu-yaram ñu génne seen néew ay fan ci gannaaw lépp ci nguuru Macky Sall la fi amee lii nag bu woyee kenn ku ne dina ut jumtukaayam ni ko kenn ci ñi doon waxtaanee démb waxee ñi naan ñu ngi koy wër kenn ku ne di nga dem ut say jumtukaay daal di waajal sa bopp fajal sa bop te li ci gëna yéme moy bu kenn yaakar ni justice dina ci addu mukk ci aduna dam bo ak kenen ak kenen ku déposer plainte justice du musa yëngatu day def enquête man mi di wax ak yeen rek amna lu mat juroom ñet ñaari plainte yo xamne mi ngi ci table justice 2017 ak légui amul benn bo xamne musa mus ubi enquête te moo neem ku déposer plainte né Ousmane Sonko rek ñu né nañu gaaw ut fuñ ko jaaré ba téré ko nek candidat di masawu dam boj bu baax di masawu wit maître Clédor sireli, Ly nga xamné mag la wayé liñ ma soti lañ ko soti té muy ko xamné dafa am ay jafé jafé ci wér-gu-yaram motax ñu rawalé ko mu dem bitim rew ñu xol yaramam di ma masaw di masaw njabotam ndax li mënon nako jural lo xamné ne xamul fu mu toll fu yegg kon ñu ngi masaw ñooñu ñëpp di dellu wax nag ni lii lépp li koy faj mooy kenn ku nekk ñun ñëpp nañu takk suñu ndigg fas yéene jàkkaarloog Macky Sall jàmmarloog moom xeex ak moom jële ko fi ci fan yi di ñëw ànd ak xeex bi ñi nga xam ne ñu ngi koy xeex muy xeexu terrain bi dina am yeneen xeetu xeex yoo xam ne dañ ko andi ndax am na koo xam ne mënul génn ci mbedd mi xeex waaye am na yeneen xeetu xeex yi mu mën moo tax bañ doon andi xalaatu concert casserole li kon doon mooy jàpp ni am na ñoo xam ne mënuñu génn dem ci mbedd mi xeex mënuñu dem manifestation waaye taxaw sa balkon wala sa ëttu kër yor sa casserole dóor yomb na ci noonu la wax ni képp koo xam ne Macky ni mu yoree réew mi neexu la dañu lancé yeneen xeetu xeex yoo xam ne mën na jëm ci grève générale ñu fexe ba réew mi yépp ne tekk tekkaaral ci ñaari fan benn fan ñaari fan ñetti fan kii nga xam ne yow sa magasin nga yor te d'accordoo ci ñu yoree seen réew mi am nga sañ-sañu tëj sa magasin ne ñaari fan yi duma ko ubbi dina dina xañ ñaari fan dépense waaye loolu mooy sa asaka ci xeex bi nga xam ne ñu ngi koy xeex ki nga xam ne sa oto nga yor di transporteur am nga sañ-sañ ne ñaari fan yi dinaa taxawal sama oto duma ko dawal loolu du dina paralyser réew mi yëpp àdduna yëpp gis ni Sénégal ànduñoo ak Macky Sall mun nañu dem nag ba def campagne désobéissance civile mooy bu dee nguur dem na ba légitimul bu dee nguur dem na ba méngootul ak askan wa askan wa gisatul boppam ci nguur googu askan wa am na sañ-sañu def lu ñuy wax désobéissance civile mooy lenn ci ay loi yoo xam ne ñu ngi koy teg te jaaduwut waa askan wi yëpp ànd ne d'accorduñu ak loi bi te duñ ko appliquer kon bëri na xeetu xeex yoo xam ne ci fan yi bu soobee yàlla mun nañ ko taxawal boole ko xeex bi nga xam ne ñu ngi koy xeex nag sur le terrain xeex bi nag foofu lay daanele lépp ci organisation la nañu bàyyi wax ju sew ji ndax jaru ko nit doo nekk ci xeex ku nekk di jiñ moroomam ku nekk naan diw deful di ak diw def na di ñëpp a ngi def kenn ku ne dafa am luñ la sant ak luñ la sas te yaa ngi koy def nit na def loo xam ne moo ëpp fuuf li fës te nit gisu ko dafa am loo xam ne àndul ak xeex waaye toog sa gannaaw clavier ku ne nga attaqué ko te xamoo kook lu muy liggéey ci xeex bi loolu ku bëgg a saboté xeex bi moo koy def bu ñu paree li ñuy def dañu toog def suñu évaluation waaye nañu bàyyi wax ju sew ji ndax amul njëriñ ki nga xam ne yow xeexoo kenn gisu la waaye nga toog sa gannaaw écran di bind di casser moral troupe yi wala di indi xuloo ak xeex ci diggante troupe yi kooku liggéeyaloo ñu danga liggéey contre ñun nañu bàyyi loolu xeex bi dañ koy gañe te mën nañ ko gañe nañu organiser xeex bi nañ ko synchroniser ndax waxoon naa leen keroog ne bis buñ ko tasaaree lépp ñu koy defandoo ci territoire national bi xajuñu ci kaw Macky Sall bu leen dara fees seen bët jàpp nañu nàngami nit bu mu fees seen bët ñun ñëpp ay soldats lañ fi mu toll nii dañoo tay la suñu bopp yooyu yëpp mu fees seen bët nañu organiser xeex bi defaraat taxawaay yi te it fi may daanele nañu moytu yenn yi ndax day yàq xeex bi wax naa ñu bëri nii war nañoo weesu fu ñuy jàppee suñuy militant ci ay post Facebook bis bu ne ma wax ko wala ci ay réseaux sociaux nañu moytu loolu naka la nit mu ne jóg bind loo xam ne leer na lii su ma ko dugalee ci Facebook mën nañ ma ci jàpp na kenn ku ne xam ni fële ci police ay écran yu bëri lañ fa teg recruter ay nit yoo xam ne su bëggoon jot ñi ngi xool page Facebook bu nekk lan lañ fa publier kon bu ñu sabootee xeex bi ñuy xeex kenn ku ne xam nga sañ-sañu di bind ci réseaux sociaux yi waaye nañu moytu di ci bind loo xam ne day yombalal ñii seen liggéey pour ñu ñëw di jàpp nit ñi kon nañu moyetu téléphone yi liñ ciy wax ak liñ ciy bind nañu moytu groupe whatsapp yi liñ ciy wax ak liñ ciy bind nañu moyetu facebook yi liñ ciy publier lii bëgguma ko waxee fii waaye fii rek laa ko mën a wax ñëpp jot si kon ñu ngi leen di gërëm di leen sant di leen wax ni man mii de Ousmane sonk xam leen ni bu doon benn laa am ci détermination tey cent laa ci am te ala kulli xal Macky Sall dinañu pareeg moom bu dee nag moom xam na ni day dem. waaye plan mooy su may dem it naa yóbbaale Ousmane Sonko mi ngi teg boppam mi ngi nax boppam mu ngi dugal ci boppam loo xam ne moom ci boppam gëmu ko kon ñu ngi leen di gërëm di leen sant di leen gën a jaajëfal di leen wax ni na ngeen gën a dëgër laayu bu soobee yàlla daañu génn suba dem kër ga noppalu ñaari fan ñetti fan reprendaat liggéey bi donte médecin yëpp am na luñ ñu bindal ak lu ñu sant ci li nga xam ne mënul ñàkk ci anam yu mel nii waaye nag jàpp nañ ni fii senegal toll kenn amatul droit toog wala nelaw ba bay yandoor ñu ngi leen di gërëm leen sant asalaamaaleykum wa rahmatullah